département bi ñu nekk maa ngi koy wax te du ma noppi di ko wax bu ñu seetee li ñu am ci magistère président Macky Sall ba Sénégal de Sénégal ba léegi Tiwaawan ak li ko wër ak Kër Seyim Ndoy gii ma ne tey amaguñ ci ko benn manque keroog bi ñuy def référendum bi mooy au mois de mars ci ñi demoon sillonné département Tiwaawan ci laa bokk ma wër ba daj ma ni tey jii bu ko neexoon bu doon nit la koo xam ne nii dafa yore làmmiñam rek di wax gëm wax bu ko neexee mu ni am naa bilan mais nag moom li mu def daf ko xeeb bëgg a dolli ba bisu daje ñëw muy 2019 mu wan leen di leen bi nit ñi dee wax man naa ngi liggéey parce kuy liggéey ak kuy wax bu weer dee du ñu bokk résultat président nag mi ngi liggéey moo tax comme gisuñu fi ku ko tane te dama doon dégg sama wayjur bu góor Cheikh Koudouy Gaye radiyallahu taala anhu yal na yàlla yeesal yërmande muy wax ni ci waxin bu xawa a ñoom mag ñi dañ doon wax mais daal da doon wax naan boo amee man tëflit laa koy tuddee boo boo tëflee ci suuf tëflit bi waw dootu la takkal tëflit bu tooy xamoo jikkoom boo mii nga bàyyi ko fa Macky Sall ñoo ngi bëgg a mii jikkoom tëflit bu waw la dootuñu taqal te mi ngi am ak ñun njariñ donc nañ ko consolider mu ànd ak ñun liggéeyal ñu Sénégal Sénégal jëm kanam ma li may wax fii nag ci jataay bi mooy li ma Mouhamed wax xëy na bokkoo leen ci département Tivaouane bi ma jiite mais Tivaouane dama ko mokkal rumbax wër département bi ba mu daj Didier mbay journaliste yeeg ñoo mbay Samb duñ ma bàyyi ma fen am na lu ma jëflanteeg commune yi nekk ci département bi yëpp comme foofu mokk na nag damaa bëgg ñëw wàlli si fii nga xam ni yàlla dogal na tey samay mbokk laa fi fekk waaw muy xolub kajoor bàyyi wàlli mii bi ma ko gëjee gis ak léegi mat na 30 ans que sama doomu ndey bi mu ñëwoon ci takkam taawam am na 30 ans dem naa fi France def fa ñaar at ak juróom boobu laa ko gëjee mais dafa dugg si rek ma ni kii de sama mbokk yaay la c'est incroyable xam nga loolu du hasard donc li Mohamed wax mooy man ci sama prérogative personnelle dinaa ci jël jàppale leen moo tax mu woo ma wax ma seen wax ma dugg te xamuma sax fi ma jëm xaw ma woon ni fii samay mbokk fi de ma xuus dugal sama yéene sama asaka yéene te bu ma leen nee nag tey jii dugal naa sama asakay yéene jàpp naa leen bu yeboon ngeen gëm ko parce que man bu ma la leen suba ci 9h nañu dee soo ma gisul xarul xamal ni fa ma ne dee naa donc wax ji jarul guddal euh, góor gi ndooy ñoo ngi leen ziar ñoo ngi bëgg ci yow jigéen ñi nag seen moroomu jigéen ay wax ak yéen xam naa lan mooy seen jàmbat xam naa leen mooy seen mébét xam naa lan ngeen mën ci famille yi xam naa lan ngeen mën ci foyer yi xam naa lan ngeen mën ci xale yi jàngi xam naa lan ngeen mën ci marché yi xam naa lan ngeen mën ci àddina bi xam naa lan ngeen capable moo tax ma bëgg ngeen ngeen am Pastef te ànd ak seen sœur bi xam ni yàlla baax na kenn du ko wax sama sama kilifa Macky Sall jàngaluñu wax yëpp la ñu jàngal te euh, bu ñu jëfee di ngeen xam am ngeen ku am ful donc du ma pare te gërëmuma sama borom kër dañuy wax naan derrière chaque grande dame derrière chaque grand monsieur il une grande dame mais le contraire aussi est valable parce que ñun fonction yu ñuy def suñu amul kilifa yu mel ni Hamidou Thierno Hamidou doo sori wala boo soree danga gaaw a xonq Mouhamed man yow du ma wax sa wax yow dañoo bokk waa wi nga nekk ci di ci def doole sa wërsëg ma gëm ni soo jógee Dakar gee nga cosaanoo ci waawoon sa wasiila nga fa am nga ñëw fii di ma jàppale man maa am chance man nii maa am chance donc xamal ni lebal nga koo xam ne nii du fàtte kalimatul xaq baat bi dëgg mooy soog a ma leen di sant ci teeru bi di leen ñaanal ngeen tàllal ma loxo ni ma leen tàllalee loxo di leen xam ni jàpp naa te dootuma bàyyi wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu